الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون في هذه الأيام يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض للاحتفال بميلاد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله وردا للجميل وحق لهم أن يفعلوا لأن ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم كان إيدانا بتحرر الإنسان من عبادة المخلوق لعبادة الخالق وحده مع ما يترتب على ذلك من سعادة الدارين لنستمع إلى الشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه يلخص لنا ما تمثله ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس عامة ولمن قبلوا دعوته خاصة ليلة مولد النبي ليلة محو الريبي ليلة محو التعب وطهر ذي التأثم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والصلاح مع اندفاع نقم والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بمختلف أنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدارسة سيرته والتوسيع على الأهل وهذا ما يشير إليه الشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه بقوله تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة بازدياد المنة لمخلص معظم maa ngi sant yàlla di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom akum njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dinay tukki mbokk yi fan yi jullit ñaa ngi waaj ci àddina sépp ñu ngi waajal dundal guddi seenub yonent feeñe salallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ koy def nag ngir sante ko yàlla def ko itam ngir delloo delloo ko njukkal moom yonente bi salallahu alayhi walihi wa sallam te ñoo yey nag ñoo yey def loolu ñoo yey sant yàlla ci feeñuk yonente bi salallahu alihi wa sallam ñoo yey delloo njukkal yonente bi itam salallahu alayhi walihi wa sallam ndaxte ak feeñam moo mooy li goreel nit goreel ko ci muy jaamu moroomam nekk jaamub yàlla rek te loolee ca lay amee tax ak àddina ak tax ak sëñ bu mag bi cheikhul xadim radiallahu anhu wa ardah mi ngi nuy tënkal e, guddi guddi gi yonente bi feeñ mi ngi nuy tënkal li mu jëmmal li mu jëmmal ak li muy firi mu wax ne guddi googu yi yonente bi feeñe mooy guddi far sikki sàkka yi mooy guddik far coono mooy guddik laabal nit ñi ci ay bàkkaar mooy guddi gi guddik mucc gi mooy guddik am li nu bëgg lépp ak mucc ci li nuy daw lépp loolu lépp yonente bi moo andi li nu koy may te ci guddi la feeñe guddi googu nag màggal ko ñu ngi koy defe ci xeeti jaamu yàlla yëpp lépp lu di jaamu yàlla rek lépp luy lu baax rek mën nañ koo màggale guddi googu yi rawatina lu mel ne jàng alquranul karim ak di julli ci yonente bi sallallahu alayhi di ko ñaanal ak di fàttalente ay jaar-jaaram moom yonente bi di jàng ay e jaar jaarandi ko fàttalante ak it di yaatalal njaboot gi loolu la sëriñ bi di junj bu muy wax ne màggal guddigoog yi te màggale ko ci nu dëppoo ak sunna day yokk ay may ak xéewal ci koo xam ne defe na ko na mu ware te sellal yéeneem bu magal màggal guddi gi yonte bi feeñe sallallahu alaihi wasallam dana ci bax itam no, nu fàttalikuwaale tuuti ci lu no war sun diggante ak mom ak yi nga xamne amna ko ci non bokku na ci ak yoy la ci jitu moy nu gem ko ndax kuko gemut lu nek ab julit bala ni ta nek julit day gem bi gem ne yalla ko yonni ta lepp lu mu wax lu aju ci diine ji ci yàlla la jóge loola moo jiitu moom bu jàllee nag bokk na ci liñ ko ameel mooy nu bëgg ko bëgg ko mbëggeel goo xam ne mooy féete kaw mbëggeel gu ñuy bëgg keneen ku man di doon li ñuy bëgg suñ bopp sax li ñuy bëgg yonent moo ko war a féete kaw sàkkantuma nag keneen ndax moom moo ko wax moo wax ne kenn ci yéen ak ngëmam du mat li fekk gënalu ko way juróom gënal ko doomam gënal ko nit ñépp kon li fekk mbëggeel gi ma bëgg féetewul kaw mbëggeel gu mu bëgg keneen ku mën di doon kon bëgg ko mbëggeel gu mel gu toll foofu gu àgg foofu bokk na ci àq yi ñu ko ameel bokk na ci àq yi ñu ko ameel itam nag di ko déglu di ko déglu lu ñuy def lu ne nu ko cee déglu lum ne ne lum lum nu ne baax na lu door koy def lu nu ne baaxul nu moytu ko loolu tam bokk na ci àq yi nga xam ne ameel ameel nanu ko ko yàlla moo wax ci alquran ne da koo giiñ sax dafa giiñ moom yàlla ne yonente bi giiñ naa man yàlla ne nit ñi seenu ngëm du mat li feeg ñu lay déglu ci lépp lu xew seen diggante te buñ la dégloo ba nga atté itam atté ba ngay atté seen xel ak seen xol sedd ca ñu ànd ca luñ ci am lenn lu dingat noo ngi ñaan yàlla mu booleenu ci ñi nga xam ne li leen war ci yonent bi dañ koy dañ koy def ca anam ga mate di ko ñaan mu defal ñu àddina ko àllaaxira musal nu ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu buntu yiw yi soob nu ci ak njub mottali suñuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj gu rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون يحسن بنا في أيام الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتذاكر حقوقه علينا معشر المسلمين ومن هذه الحقوق بعد الإيمان به أيها الإخوة المؤمنون محبته فوق محبتنا لأنفسنا ولجميع الناس يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومنها تحكيمه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أمورنا من خلال سنته مع الرضاء التام بحكمه يقول الله تعالى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 قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله